maa lay siyaare. waaw Xaadim Anta Seck fay naa la ginnaaw bañ sant yàlla julli ci yonent ñu ngi sant suñu ñaari waajur di sant suñu sëriñ sëñ ab Sakkoor mu sëñ Cheikh Fall Ngunda di ñaanal sëñ Cheikh Jëmb Fall mii suñu xalifa général ñun Baye Fall yi mu yàgg fi lool te ànd ak wér waaw di ñaanal sëñ Muntaxa mii suñu xalifa général ñu ngi koy ñaanal mu yàgg fi te ànd ak wér di ñaanal yeneen kilifa diine yi ak yeneen kilifa aada yëpp waaw ñoom ñëpp sëñ may Si Mansour waa Yoof ak waa Njaasaan ak waa Laayeen ak ñëpp ñu ngi leen di ñaanal ñu yàgg fi loolu te ànd ak na nga leer le nouveau marié la nag doon takk jabar nga leer noonu. waaw mais dara non essence yi mooy loolu dañuy entraîné sangu ba set mooy loolu noonu nekk ci suñuy business quoi oui. premier mars nga fi mujjoon si diggante ak daa boobu ba léegi. waaw boobu ba léegi amaataguñ combat nag mais promoteurs ñu ngi ñuy woo di ñu proposer ay combat quoi. comme kan ak kan. waaw anti lañ ma fi proposé gul quoi. njool mu faas mi ay jàmbaar a njoolu gël bi tapet la nag. day jël combat bi coow li wàcc ko de maa ngi ko dégg muy yónnee ay vocal di wax ay wax yu indiscipliné hmm. mais loolu du làmb ji mooy loolu na jël avance bi rek. moom plateau laa leen bëgg a invité mais nee na da lay bañ a duma doo ñëwaat Thiès. non anti boo ñu boolee plateau combat bi du dama koy bañ a dóor ku boo xamante ni mooy loolu noonu mën na jaare nelaw te dootul yow loolu laay bañ. Vox Arena soxla ko ci la tàggee woon nañu waxante dëgg est-ce Anta wax la ne la baal mu sedd kooku njool la. non yow xam lépp. yow man combat bu tegee ci man xam nga bu tegee ci anti xam nga man joxe naa sama accord pare naa moom kay moo fi nekk naan ay xamaguñu kañ la ñuy bëre du ma fi jël avance loolu waxi tapet la. non moom ragal face la dëkk. non moom waaye anti di tapet bu mag anti di bande français. dama koy léegi de mi ngi lay dégg. bande français la wax ji moo ëpp jëf ji. Ah. anti man waruma sax di développé ci moom. ma dugal ko ndax man ak moom bokkuñu ay niveau yemuñu man ak moom. Ah. bëreel na ma spécial. ku amul li la gënal nag am li fi sës dama koy may buzz mu yónnee ay vocal di saaga ak di wax ay bu dof dof loo nag dootuma bëreetee ak moom sax musul bëreek adversaire bu mel man na rek la rek du ma moroomam. mais Anta fan fan la la bëri la spécial baal ma seet loolu kañ la. sama combat ak mbay guy gi moom moo bëreek caatu waalo. direct fii fii wa Thiès laay ko dégg nii lu mu la fi yëgul da koo nga. bandi bandi français nga xuma lan bëreel nga ko spécial lu mu la waxul da kaa fàtte daal mi ngi nii tugg na du teew ñu ne taal. waaw xaarim waaw. dégguma de waxal si kaw. man sant yàlla. waaw sant yàlla. jërëjëf Serigne Touba. yow kenn invité wu ba ngay sant ak gërëm lii émission jàmbur la dañ laa woo rek. da ngay wax rek ñu dem de da ngay jël combat bi coow li wàcc la de. nga ne foofu di ratatati naan ay ginnaaw ma sant lii du sa lii sama émission la da ngay wax ci combat bi tapet nga yaa ngi yónnee ay vocal di saagaak lu ne nga koy wax mais bis bu ñu bëkkantee dinaa la def lu metti eh, eh, eh, andi nga ne lan xaru nga amoo doole doo màgg nee na yaa ko bëral bi mu bëri mbay guy gi anti xaru pël-pël nga du ma sa morom déglu ko ah? non non nee na bu ma leen boolee plateau da doo ñibbi. non bu ñu boolee plateau dama lay duma dama lay dóor ku boo xam dootoo yeewu combat bi kon du am. yow fu ma mbëkkanteeg yow dama barke maam Seera Fall. andi allo. non bu ko dagg bàyyil ñëpp teg seen bët waxal saagaal waxal lu la neex. alo andi. andi doo mbër amoo doole xaru pël-pël nga doo màgg. ñaata année nga nekk ci làmb ji di bëre ku la wax gis sax du la teg mbër rapport lay teg demal nga liggéeyi fii li nga fiy gis lépp doole la matin midi soir dañuy entraîné maanaam man maa la ëpp doole du ma sa morom. waxal lu la neex. alors mais barke maam Seera Fall xam nga euh, toog foofu di yónnee ay saaga amul sens quoi da ngay jël avance bi. waaw waaw. <laughs> non bu ñu boolee plateau man. anti dama koy duma. anti dem na anti dem nee na bu ñu bu ñu la balaaw duma la de. <laughs> kii théâtre la. yii na de. kii xam fu mu waroon dem Sorano di animé. non non moom nee yow goxu goxu. non day comédie goxu comédien anti xam nga ni boo ko gisee ak abimam noonu mu ni day duma laay goote da ko yor. ah mbër la bu sumee ko doo laajte ana ma de. dégg la yor. yow yaa ngi nii jàkkaarloog man. état <laughs> dafa dof rek barke maam Cheikh Ibrahima Fall billaay wallaay tallaay bu jëlee avance bi bu arbitre soufflé seconde bu ko combat bi defee nañ yëkkati loxoom du ma moroomam waay bu arbitre coup de soufflé moo ko bàyyi fii anti saagaam yi ak waxam ji coup de soufflé arbitre daa soufflé wul rek anti sax du waay waay nan ñaan waay du maag anti maa ak ñeneen ñi ci kaw amateurs yi ñoo soxla combat bi di ko demandé Vox Arena ne yi sax d'accord ñu ci combat bi de. man maa amul lu ma gën a rek am li mais anti xam nga ne su ma takkee ngeen mu njaab mu takk ngeen mu njaab bokkuñu man ak moom. anti nugul ah. man kay sànq mu ànd naan ma wu di ma wax naan ma yàgg wuli deux. non wuli deux laa bëggoon nag. mënoo ko am man ñooñu a bëreel. moo la raw moo la raw di wariloo. moo raw moo daan ambulance du la jël. waaw yow ban raw. ku daan ambulance kon raw raw la rek daan da dina bëri jën kayre. jën kayre man ak moom a tolloo catégorie bi. jën kër la raw na si lamb waaye lan la ma rawe kan la fi bëreel ay koñaa la fi bëreel ñooñu la fi bëreel ñooñu maa ngi sama adversaire lañ ay coins waaw ñooñu dañ maa raw raw la moo tax mu jël sa garab waaye bàyyi ma nga am ay raw dañoo amul li ñu gënal rek am la fi sës lii nga am moo la gënal nga jël ko jël na ko mais combat boobu dafa diis si moom jàmbur am na combat waxal ñeneen ñi combat boobu dafa diis si moom de jën kay rek ba mu gëjee nelaw yàgg na de gëj naa nelaw de doomu Médina la du ragal mi ngi nelaw di lekk naan. xaarim nan ñaan. ñaan amul fii. non na ñaan nañ close débat bi. non close waxal waxal say adversaire non ay wuli deux ñoo waroon ñëw ay qualifié deux ñooñu noonu. mais du maa koy anteeg yooyu. mais ñooñu ñëpp am nañ combat looloo waral may jël anti mi pour duma ko dumay métti daan ko tëj làmmeñam xaru pël nga amoo doole doo màgg xaru coggal nga maa ngi la gis nga toog ci télé bi naan ay état diriyanke la yor ay ñokket la naan mooy loolu ñun dañuy entraîner matin midi soir boo xoolee suñu kanam xam ni jëluñu benn produit yow yaa xaru pël-pël kay yow yaa magul jëlal combat bi te bàyyi sa wax ju bari ma duma la dumay métti. non bëre gi bu mu tax nga ne fi naan ay euh, xaru màgg na si waaye màgg anti du làmb waaye ku suuflee ko fi bàyyi. booy jóg at bi dafa suuf la rek mu daan ko. billaay wallaay du làmb te bala nga ko doon xam arbitre ni fir dafiy jugee dama ko fiy jëlee ah. Thomas Jackson dégg naa dugg na fii nga daw Jackson bi duma Pape Ndoye donc dóor yu métti loolu nga doon bañ moo tax nga daw Abdoulaye Ndiaye maa ngi ko dégg mu toog ci télé bi naan Jackson ensemble bi yóbbu nañ ko fu ne looloo dëgg looloo waral mu jël Abdoulaye Ndiaye du waxantu déglu looloo waral mu jël naaru sokaas ak affaire yooyu noonu Abdoulaye du waxantu avance su Jackson ñëwul fii ah. yaa ngi may dégg Abdoulaye du waxantu de moment yi mu dóoree Pam Ndoy mu daanu kenn proposé wu ma ko Jackson bañ ma koy proposé boobu fekk na yaa ngi may dégg maa ko gën a biree ci làmb ma bañoon ko wanewuloon ay yaa ngi may dégg mais bi mu dóoree Pape Ndoye mu daanu. fekk si la dóor la. kenn proposé waatu ma ko mais Abdoulaye Ndiaye warul toog ci télé bi naan Jackson dañ ko pour avance am daa war fu ne. Abdoulaye Ndiaye du waxantu. non waaye am daa ñëw ci man. Abdoulaye yow man ak Jackson sax moo nekkoon làmb ci Jackson ak Naaru Sokaas du làmb. non du làmb diggante mag ak gone la loolu liñ magantee as bi dafa sori te man ak moom ñoo bokk catégorie. Jackson man mii la waroon bëril moom moo dem xooli lu nooy ba pare gars yi buñ toogee ci télé bi naan ay yóbbu nañ avance bi fu nañ bàyyi yooyu su paree ci naaru sogaas pour mu jël nañ bàyyi yooyu yooyu lañ doon wax ci rëg-rëg luñ ko avance muuru bi bi coow li di bari mu bañ mu rasu waaye bàyyi ma waaye nga naa ma guy gars yi dañuy xool lu nooy di ñu so bu ñu waxee ñu naan ñooy waada yi ñooy champion yi te koo ci woo muy kot xam nga ko jëloo ko da ngaa bañ Kalmandour grand manik la la njool mi. Kalmandour dañoo bokk man ak moom sax. Kalmandour daari ca yoonu ngaaka ya laa la wax. musul daanu yaa ngi gis ka du maa Kalmandour nante la. Kalmandour amateuru yi dañoo xam Kalmandour. xam nañ ko Kalmandour bëre ci àll bi bay bëgg a dee man man déggoo li ma la wax. awma ku man awma ku may may sens xaari damaa bëre ba jaam ñi xam ma duma ma may kenn loxo ca kaw rek. defaguma retour de ala laay def kon du ma fi may kenn sens almunduur na jaar ca yoonu ngaaka ya dem bëri ji man du ma ak moom waaw. yaa ngi njaayatin nag. njaayatin tamit na jaar ci yoonu ngaaka ya dem. moom nee na bu ñu ko fayee cent franc sax mu bëreeg yow. waaw ndax bëreeg man mooy loolu noonu. balaa bëgg a bëreeg yow daan la. bëreeg man bës la ci moom njaayatin. maanaam xaritam ba mbay guy la bëgg def tax loolu. dégg dégg naa ko muy wax mais moom. cent dafa mbir quoi na bàyyi ba combat bi jot rek ba combat bi ñor. ñor na ñoree mu xam ne lépp dëgg la ñor na mooy loolu non combat bi ñorul munuma daan ba guy gi daan tonnerre numéro 2 tourné di bëri njaaytin loolu sax xel da ko yenuwul yenuwul maanaa non man njaaytin xaw ma lu ma am ndax man njaaytin siifuru ma ko yaa ngi may dégg gis nga daan mu daan tribo na ma daane tribo ak ni mu daane tribo est-ce que benn la tribo yàggul de ah baat ak la mook tribo lay laaj mook la tribo lan la man ah, tribo de combat waaw ba pare ngay wax mais moom baat ak tontu la moom Turbo Turbo moo leen boole. maa ngi Ndiaye Tine daal jotagul heure bu jotee nag dina yomb. moom bu bëggee combat toog xaar te dem entraîné ji rek. heure bu jotee dina yomb bu jotee rek ñu bëri jotagul moment yi ñu toll. léegi laay góor ak kan. non instant yii nii anti lañ may wax. waaw anti kay moom li mu wax dégg nga ko moom. anti lañ may wax te anti fii léegi dégg nga ko te anti sax du maag moom anti maa ko raw fuuf xam la moo tax ma bëgg a jël anti anti day yónnee ay vocal di ma saaga. anti waaw bëgg laa duma moo tax. billaay wallaay tallaay bis bu mi nga daan leen naam bi nga daan loo ko métti bis bu nu mbëkkantee si taan bi dina xam ne amul fit leen naam bi nga daan ko métti bandi français la bis bu nu mbëkkantee dina xam ne amul fit moom bu leen fa mbëkkante bu ngeen fa mbëkkantee moom moom damay ragal dama koy damm double fracture laa koy def nga xama lan dóor ku muy tartari ma éto ko damm ndigg li xam nga daa sew yaa ngi toog fii Thiès neex rek bàyyi waxam ñu bari Thiès neex na ngay wax rek nga toog yow combat bu boo dawee ans dama lay fekk Dakar duma la yow laay waxal yow anti promenade bi nga toog mu neex la ngay wax loolu neex da nga koy damm foo a damee anti yow bilaay wax moo ko sentiré damm ndigili dama amul boo ko damee ñu teesa licence d'auto auto ba mu tëdd nga naan ma ma wax na waxal kàddu kàddu mujj sant naa la gërëm la bëgg la sant ñëpp maa ngi sant safara bi di ko xooj. bi muy bi bi laay di bëreeg mbay guy gi. gaz la indaale ca làmb ji teg ci cin di ci xooj saafara yi di ko sottee ko. tonnerre 2 boog. bi laay di bëree. anti di ko bëree spécial bi laa la wax dee ma dégloo xel. boobu anti gaz bu mag la fa indi teg ci cin sotti ci ndox di ci dugal butéelu saafara yi di ko ah, sottee ko. waaw moo tax mënut daan lay mënu daa ragal ndox du sangu. kooku di booy Medina bal bal sant bal bu sant di ñëpp di gërëm ñëpp waaw di sant waa Portugal ah waa Braga sama goro yi di sant sama soxna waaw di sant ndaxam maar sama goro di sant Baye Thierno Mbuub di sant waa Portugal gi yëpp maa ngi leen di sant di leen wax ni waaw peace and love ah oui nice waaw dëgg naa la waaw laay góote si ar naat dëgg leen loolu mu du xule maa lay bëgg di la sant yow it di sant El Hadj Ousseynou Diouf ak ñi fi jàpp ñëpp émission bi noonu la demee woon doon xoolaat yeneen mbër jën kay rek xaar ma maa ngi ñëw sampradage tey moom moo fi jaar maa nga ca unité treize moom ma sañseel nii maa ngi koy sant di ko bëggee di sant di sant di sant yàlla bu baax di jul ci yonente bi Vox Arena Equivox ci kaw ci kanam Cheikh Abdou Karim Mbacke yàlla na fi yàgg te wér